mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk daara Abdoulahi Gaye moo leen di nuyu di leen ziyaare ci subak altine ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jàmm yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit sàmmal ñu suñu iman ba mu bañ a rëcc bu ñu demee mu bég ci ñun lool moom suñu boroom waaye musal ñu ci jàngoro bi ni ma koy waxee rek ku mu dalul yàlla bu mu la dal ku mu dal yalla yàlla fëgg sa bopp nga dellu sa yitte ak sa njaboot ku ci ñàkk sa bakkan yàlla na la yàlla xare ajjana barke alquranul karim yóbbal tey bi nag dafay wax ak ñun di wax nii ñi ñu jàpp ni ñoo am xel moom jàppul ni ñoo ñoo xel muy wax ñen ñoo xelu muy kàddu gu nitu yàlla bu kawe nag mooy wax loolu mu ni aqalu naas man taraka dunya qabla an tatrukahu wa anaara qabrahu qabla an yaskunahu wa arda rabbahu qabla an yalqaahu mu lay wax kan moo am xel kan la jàpp ni moo ëpp xel ci nit ñi nee na mooy koo gis mu am ñetti taxawaay yi jàppal ni ku am xel la te it ku jar a bàyyi xel nee na mooy ki nga xamante ni moom bàyyi na àdduna bala ko àdduna bàyyi ndax àdduna moom am na fulla ju toll ni du ngeen ànd pour l'éternité déedéet moom yaay am xel teel ko bàyyi di ko gérer mu bañ laa gérer wala boo sàgganee moom mu gérer te bu la gérer du baax mooy moom dalay bàyyi ba génn ci yow nee na nag ki xelu dëgg mooy ki nga xamante ni moom du bàyyi ba àdduna bàyyi ko muy soog a bàyyi àdduna waaye moom muy njëkk a bàyyi àdduna ndax wandur ila man xawa dunia bi ajmaiha hal raaxa minha bi gayri daadi wal qutni aw wal kafa nee na ah, ndax xoolal ki yeen woon àdduna rek ngar daajoo ko defee ni mooy léppam ndax bi mu fiy jógee jëlee na fi lu ëpp la ko laxase ak la ñu ko waajalee rek jébbal ko boromam déedéet mun kon ki am xel daal ki si njëkk ki mu wax moom mooy ki bàyyi àdduna bala ko àdduna bàyyi ñaareel bi mooy ki nga xamante ni leeral na bàmmeelam avant mu fay dëkk lu am solo la bàmmeel dañu fay jiital di ko leeral di ko toppatoo ba buñ la fa dugalee nga nekk fa ci leer boo xamante ni doo xalaat mukk ni fii dinaa fi dugg délestage am ci biir sama bàmmeel doo fa yaakaar benn coono ndax yooyu yëpp yaa ngi koy préparé fii jiital ko moo tax mu ni la laa daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuhu illa allati kanat qabla al mawti gi nit ki di dëkke mu doon këru jàmm ci moom këru xéewal ci biir bàmmeelam mooy kër gi nga xamante ni liggéeyoon na ko avant muy faatu ndax bàmmeel moom lu yonent bi wax rek nee benn mu doon benn jardin ci jardin àjjana yi wala mu doon benn kàmb ci kàmb safara yi yàlla nañ ci yàlla musal mu ne kon ñaareelu am xel daal moom jàpp na ni ni ku koy jikkoo sa xel rafet na mooy kii leeral bàmmeelam avant mu fay dëkk ñetteel bi mu ni kii kontaan loo boroomam lu jiitu muy dajeek moom loolu dafa am solo yàlla kontaan ci sa taxawaay mooy ñi nga xam ni bu ñuy faatu yàlla day wax malaaka yi ni leen ne leen leen yaa ayatuha nafsu almutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fa duxuli fi ibaadi wa duxuli jannati yow bakkan bii de yàlla kon bu dal dalal te xam ne yàlla kontaan na ci yow dellu sil nga ñibb ci sa boroom yàlla kontaan na ci yow gërëm na la ni la dugg bokk àndal ak sama jaam yi te dugg sama àjjana kon nee na ñetteelu ko am xel daal mooy ki nga xamante ni kontaan loo na boroomam lu jiitu muy dajeeg moom moom yàlla nañu yàlla may jikko yu tedd yi ak melokaan yu rafet yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu